salaamaaleykum kon mbokk yi ñu dikkal leen ci Cheikh Chouaïbou radiyallahu anhu waxtu yi mu gënee àddina fi mu gënee àddina ba ni mu génnee àddina ñu tënk ko ci kàddu yu gàtt mi gënee àddina njaareem ci kër Serigne Touba gi Serigne bi nekkoon. tolloog juróomi fan ci weeru koor ci bisu ajjuma ñu di ko nattale ci 1917 bu doon jëmm joo xam ne it ku teel a bàyyi xel jaamu yàlla la waaye ku neexum xel la ba yéeme lool lool lool ba ci bim dalagut jàng bari na yu bari yu muy nettali yoo xam ne xëy na sax xel mu neex la koy jàppe ngir ak am lum teg ci sunuy loxo waaye loolu moom ko xam ku ne da nga xam ne weesu na neexum xel kese ndax benn daana wax ne soxna Mareema fëralu ko ndax moom at ak nangam la soxna si am moom ci àddina wàccub liggéey bi mu wàccub liggéey bari na lool ñuñ ko jox ñu war ko nàmpal waaye rek kuñ ko jox rek day gàntu ba ñu baree bari jaaxle ci ba soxna jëng silla mi nga xam ne moom sëñ ma ñaaw si ñoo bokk lépp te mujj soxna Marema mu ñëwal boppam ci sëriñ box ko ñu ko maree mare kii mu fi bàyyi sooy bi mii ñu ngi ni bëgg jaaxal ndax nanguuti nàmp kuñ ko jox rek day gàntu sëñ bi ne tekk ab diir ko ne nañ wooy xari sill sëñ miñ ma tudde soxna xari moom mooy waajuram soxna xari daal di ñëw toog sëriñ bi ne nañ ko jox mu daal nàmp gàntu gi mu doon gàntu ñu bari bi mu gisee soxna xari ko rek mu daal nàmp sëñ bi ne moom la sama borom wax ne moo koy nàmpal kon soxna xarit moko ko mottali ba waye li yeme daf daa fàttali lu yeme daf daa wax ne fàttaliku naa ko soxna Mariama Jaxate wajurum don sax alquran gone yam da jangal fatali kuna lu mu leen daa sax baat yoo xam ne booba tam ko tàmm ba min ko ku férégul nag fàttaliku yaakaar naa ñaar at jim ñet bax na ci waye nak bu bu fer nak lolo mom day wessu li doomu adam xam day dugg ci nag mayu yalla ak kiimaani nit yalla yi waaye nee na fàttaliku na ku soxna sina sa bar yam ko daa sax dafa ne ci nopam ba fàttiwu ko bi ko lajate bim doone mak tuti lajat ko dañ ko da soxna mare ma nga ko ndax koku ngay wax mom dong ko fi jangal moko da jangal jàngal te fàttaliku na tur yi bi ci topic bim la dal jang sëñ Tuba génn xasida Ihfini wax ca lam ca wax ne ku ko mokkal jënd nga sa àjjana ba jar àgg na ci sax waa kër gi ku ko mokkal mu am lu la jox neexale la ko ci xaalis te xam nga dafa xir loole mu jigi woon nag ne ku ko mokkal moom ma jox ko nangam tax na kër gépp di ko jàng ngir mokkal ko ku ne di déglu sa morom ku ne naan téyel ma ma taril ma ba xam mokkal laa Ihfini am dégg déglu gi ñu koy déglu seen biir nag booba dalagu jàng nee na ci la mokkal ik fi te booba dalagu jàng bay firi ji bi ko sëñ bi dalalee it ba jox ko sëñ am satu moom jàngee tuuti diggante juróom-ñetti at juróom-ñeenti ci la mokkal alxuraan fukki atam fekk na mu mokkal lépp lépp lépp waaye juróom-ñett juróom-ñeent rek wàcc na bay gëndale waaye fukki ya moom waxatuñ ko dafa mokkal fu mu xurum xurum waaye diggante boobu bii nag ci fukki atam juróom-ñeent jëm fukki at foofu yi lañ wax ne tàmbali njàngum xam-xam ak di beqi foofu la toog benn bis rek ne man daal gis naa ne julli ni mu toll ci yàlla xam naa ne waruma sax wàcc na ma muy ba ma juddoo ba tey jii waaye dama koy def ngir jaamu yàlla sante ko ko fay ko daal di kelkin bis ba mu gënee àdduna ba ci bis boobu muy wax waxtu waxtu waxtu waxtu wum fi masa am waxtu julli mu julli ko sante ko yàlla noonu nga yaakaar ci histoire bëri fuñ koy gis koo xam ne fay nga li nga weesu lépp ba nga gënee àdduna ba ni nga noonu yàlla su daal muy wéy muy ba ci fajar gi mujj julli julli na ko kon kiman ci doomi sëñ tubaa du kiimaan waaye histoire bi andi rek ma di ci jaar mu teel a mokkal lool teel a jàng xam-xam waaye xam-xam bi yàlla may ko mu doon ko fonk xam-xam ak borom xam-xam di gëstu nangoo yër lool nangoo sonn ci ay téere nangoo bind loolu may na ko ci mustawa boo xam ne yéeme na lool sax fi mu toll ci xam-xam yéeme na man a bind arab yu rafet mën a waaraate mën a xuppi ba am na xutba yoo xam ne sax eh, xëy na dañ ko dul leeral waaye ci ay mbindam lañ ko jëlee def ko ay xutba yu ajjuma eh, mu doonal ko fonkoon boroom xam-xam yi yi ci biir yoon wi ak bitti yoon wi sëñ Asan Busa daana jógee gerte di fa am bu xëyee ñëw fa ba guddi mu doon a dem sëñ abi moom du fexe ba tuxal sa ko mu dend ak moom moom la defan imaamam lépp loo xam ne jëm na ci diini yi lu ko ci waaye wax naa demal sëñ abi mu àtt la noonu la fa ngi woon sëñ Cheikh Seyd imaam yi Daaru Xuddus booba suñu cheikh sey jitu jiitu jugaay dara xudas jàkkee dara xudas yi di nopi kër sëñ soxna bi daa jullee si waxtu ne mok suñu abib ñoy seess ci sàppe ci suñu soob suñu bi bu geeso rek ci ñom lay yam noonu la fonk wane ñi nga xamne nekkun ci yoon wi te te day julit di ay kilifa yi diine te dundu xam-xam ak diine ku mel ne sëñ Aydi Touré sëñ Abbas Sall sëñ Abdou Assis ak ñeneen ak ñeneen ñenn ñu ne dañ leen fa daa gis muy maslaa ñoom di waxtaan ak ñoom di dund ak ñoom xam-xam di waxtaan ak xam-xam noonu moo doon ni mu bindoo di jàngaleel boppam alxuraan nag boppam rek ko ci doyoon ba mu koy man bi mu demee ba tële ko it ñim jàngalal boppam tarbiye leen ci njàng mi ak ni ñu war a jàngalee bañ doy ko ñooñu la samp ñu di ko jàngaleel waaye du tee nag muy contrôler njàngale mi du leen bàyyi njàng mi njàngale mi ci loolu la nekk nag booleeg alxames ak àjjuma ju ne waa kër sëriñ bi dafi ñëw di jokk bokk muy maslaa ak ñoom léeg-léeg guddi mu dem seeti leen bu ko mënee rek léeg-léeg mu dem kër soxna moom léeg-léeg kër sëriñ Abdou Xaadir léeg-léeg kër sëriñ Saliou topp ko noonu waaye du ko yàqal dara ci mu jàngaleem fonk seex si loolu nag seex si nga xam ne dañoo toppoon sëriñ bi surtout ñi xam ci sëriñ bi dara li ci ab alxames ak àjjuma lañ fa daa ñëw sëñ mat dem sëñ mat laam jóob mag ñooñu daal muy gëstu ci ñoom li xam ci sëñ bi te loo ko wax du ko fàttali te du koy bind na nga ko waxee na la koy xamee bu koy nettali ci lay jaar noonu la fe noonu la bëggee woon sëñ bi jeex takk ci moom di xeñtu mbiram wóolu ko lool sopp ko lool bëgg ko lool lool lool kennal ko waxtu waxtaanul ci sallallahu alayhi wasallam waxtaanu ci alxuraan sëñ bi lay waxtaane ñett yi rek mooy waxtaanam waaye waxtaanu adduna moom du ko def waxtu wu ne làmmiñ waa ngi tari alxuraan bu doon déglu ni alxuraan yi làmmiñ waa ngi tari alxuraan bu ko jàngu rek maa koy tari ci loolu la nekk nag ba 1991 le te seeg fukki fan juróom-ñeent ci Ramadan mu dundal guddi gi Laylatul Qadr alxames ci guddi ba seddi ajjuma imsal melee fajar nag ki nga xam ne mooy Abdul Majid doonoon loxol nday yoram doon doonoon doom doom sëñ bu Mbàkke mu na ko demal julli ji demal julli ji te ñëw daal di jullee ci pokkus boobu mu daa toog ci fi ngay njëkk a jot ci tabaxu kokiyaas bi Abdou Majid dem bàyyi ko mu julli moom mu julli ji delsi fekk sëñ bi tëddee ba tam day yor yor kurus gi di wedd kurus gi doxatut mu jege jege di ko xool ba mu ji ñaaw ci njort mu daal dem sëñ Abibu bu ko ah, sëñ bi di mën naa seet si ba xam sëñ bi bu dikk ne ko oh, laa ilaaha illallah sëñ Tuubaa dëgg ngi door a dem nag loolu la seere kero kon nag booba la ànd ak salaamun hiya hattaa matla'il fajri loolu mooy 1917 ba 1991 ci tënk dab bi mu gënee àdduna fi ko gënee fi mu génnee àdduna ci Touba ci këram gii nga xam ne ci këri sëñ Touba yi la bokkoon ñu denc ko ci pénc mi yal na ko yàlla fayal te gërëm ko te jéggal ko te yokk ay leeram ba faaw jërë ngeen jëf.